asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateur yu TMS TV ñu ngi leen di ci bësu ajjuma tey bi di 19 mai ñu nekk fii ci cité Djily Mbaye ci clinique euh, Darou Laye di clinique le khalife général le roi médecine traditionnelle du monde di El Hadji Thierno Moule Sow di ko ziar di ko jox wàccuwaan di ziar. Euh, ay waa këram di leen ziar bu baax a baax euh, di leen wax ni nag ñëwaat nañ ci seen émission petit matin ci télé bi nga xam ni mooy TMS bi moo feeñal lépp lu nëbbu làmboog jëriñ tey nag euh, ñu indi xam ngeen thème d'actualité mooy affaire aji Sarr Ousmane Sonko xam ngeen ni ci talaata ji juge bi dafa jël décision pour renvoyer procès bi ba mardi bee di ñëw le 23 mai fii ci Ndakaaru kon xam ngeen ni TMS bi moom bu euh, ci xaar lenn saa su ne ñu ngi ciy def ay débat di def ay plateau tey nag petit matin boobu la ñu leen di indil ma ci ànd ak euh, sama naataango yi yi nga xam ni ñoo nekk ak maa nekk ñoom fii ci kër gi saa su ne ñuy indi ay thèmes yu am solo euh, soxna Anta ak Seydou. kon soxna Anta. Mhm. ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la nuyu tey ci bésu àjjuma. merci Seydou Mouhamadul Moustapha. maa ngi lay nuyu du nuyu suñu internaute ak téléspectateur yu TMS TV aussi di nuyu sama confrère Seydou Kane. Seydou ñu ngi nomba daal di Seydou. jàmbur macha allah. Hmm, no sukaabe. sukaabe bi Thiel. no gàllay maa woni. gàllay bi Thiel la benn jàmm. alors ñu ngi a <laughs> maa ngi lay dellu ziar tonton Moustapha. Hmm. donc di ziar aussi Anta donc di nuyu suñu mbokk téléspectateur ak internaute yu TMS TV ah. di leen souhaiter aussi li nga xam ne di juma mubarak donc day bés bu sell di vendredi donc di leen ñaanal aussi jàmm rek ci réew Sénégal. alors yow sax laay commencer. Mm-hmm. Euh, euh, Adji Sarr Ousmane Sonko gis ne maa ngi jaawale sant yi. mu nekk ma jox la sa sant. <laughs> Adji Sonko Ousmane Sarr alors mu nekk nag procès bu doy waar. Mm-hmm. procès boo xam ni indi na ay xët-xët ci réew mi indi na ay coow. mais également indi na violence bu métti métti ci réew mi. Mm-hmm. léegi sama laaj mooy. gis nañ dafa renvoyé. mbir mi ba talaata bee di ñëw hmm. yow ci sa jàngat est-ce e yaakaaroon loolu day gën a xam bu taal oh, waaw bon en fait xam nga dossier bi moom li xam taal bi mooy commencé na depuis depuis depuis le début parce que bu ñu xoolee depuis mois de mars la taal bi commencé ba am ci lu toll ci quatorze nit ñàkk seen ay bakkan mooy mars deux mille vingt et un donc gis nañ que dossier bi moom bu mu commencé ba léegi maanaam ci xam rek la nekk ci taalu rek la nekk alors gis nañ que ni le euh, le doyen moom renvoyé na li nga xamante ni moo di dossier bi mais ton tonton Moustapha xam naa balaa mooy kiiwaat ci ci question bi nga xamante ne posé nga ko man sama jàngat laa def ci li nga xamante ni moo di dossier bi maanaam dès le début xam nga bi nekkatul dossier bi nga xamante ne ñaari citoyen kese ñoom ñoo ko séq diggante Ousmane Sonko dem ba bon moment dafa nekk dossier bi nga xamante ne c'est un dossier politique te dossier bi man euh, dama jàppale que ni lii man du ma dindi thèse bi nga xamante ni mooy di complot bi parce que dama yaakaar que ni dossier bi c'est politique. c'est politique parce complot bi nga xamante ne ñoom tudd nañ ko ci ñi nga xamante ne moo di Ousmane Sonko tudd na ko ci dossier bi mënoo ko ci génne parce que dès le début boo xoolee procédure man je pense que la procédure a été biaisée en plus procédure bi li ngi si gis ay arguments yi nga xamante ne ñoom waa Ousmane Sonko teg nañ ko par rapport ak ñi nga xamante ne moo di waa Adji Sarr da xam ni carrément que lii am na xamante ne lu xew. man xam nga la fan laay jàppee dossier bi complot mooy ojo yi nga xamante ne Adji Sarr génne na ko wax ci dossier bi loolu rek leeral na li nga xamante ne moo di dossier bi li mu si wax yépp bu ñu xoolee loolu rek da nga xam ne carrément que lii du ñi nga xamante ne tudd na ko leen ci nga xamante ne moo di dossier bi alors dossier bi bu fekkee ne renvoyé nañ ko bon je pense que le juge moom moo xam lu tax mu mu xool li nga xamante ne war nañ ko renvoyé mu renvoyé dossier bi xam naa dafa gis que ni am na élément yu nga xamante ne moom moom manqué mu waral ñu renvoyé dossier bi ba le 23 alors ñu xaar ba le 23 rek mais yaakaar bon yaakaar naa ni 23 bu ñëwaati tamit li ñu gisoon rek bu moytu loolu ñu gisaat ay manifestation booy di saccage rek ndax dossier bi moom tollu na foo xamante ni moom metti na daal. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. a ñu renvoyé mbir mi <laughs> ci talaata jàngat. bon bi may def euh, euh, ci dossier euh, Ousmane Sonko ak Adji Sarr man je fois que. Euh, dafa dafa dafa mel ne affaire bi dafa dépassé ci nit ku ku tooñ ñu dem ci police mu euh, ci yoon mu àtte leen parce que bu fekkee loolu kase la quand bu ñu waxee viol cest c'est-à-dire que dafa yiiñ xam nga euh, c'est un présumé de viol c'est un présumé viol mm. instant bi kenn mënu ne euh, jàpp nañ ko euh, da doon violé loolu kenn mënu ko ko wax tamit bu fekkee yow danga nga ne diw dafa ma viole il faut que tu essaies de mettre les preuves nga daal koy teg ci table bi yaa ngi dégg Ousmane Sonko aussi moom mu setal boppam wane ne lii la mais je vois un Adji Adji Sarr boo un Adji Sarr xam dafa mujj nekk star moom yaa ngi dégg mm. suy ñëw ak déguisement bi tàllal loxo yi comme si punch lay ut ah non man man je vois que li ma gëm hmm. mooy que viole bu amee nit ki dafay am war na jigéen ñun nit ñu yaree ak kersa bi ñu yaree Sénégal ku xam jigéen yi xam ne dañu am kersa ku xam jigéen xam ne ñemewul yenn yi tey bu tey bu bu jigéen ak góor bu ñu sekkoon dara jigéen rus na bu euh, waa koñ be xam ko dañuy day rus a génn tey. jigéen mais par contre ci tribunal waaw ci tribunal mais attends mais yow. war na ñëw war na solo. wa non mais ni muy wanee boppam mais comme ni muy mel comme star yooyu man je vois que ni étant ku ñu violé sa xel war na xalaat leneen. lu dul kon nga jàpp viol bi man jàppuma ne viole bi amul de dama ne. non ni may argumenté mooy que ni. kersa bi ñu yaree jigéen yi yaa ngi dégg man je pense que côté boobu dafa des tey bu nee ne dafa viole na indi ay preuve am Sonko man fara du du taxaw ma ci jugé wu ma Ousmane jugé wu ma Adji Sarr juge bi ñoo leen war a jugé nañu taxaw. ku nekk indi say preuve des preuves à l'appui qui prouve que ni kii violé wul mais 17 personnes boobaak léegi 14 yee passé en 2021 ak tey 3 personnes ñàkk seen bakkan suba tamit le 23 leneen mun na xew donc man li ma gëm mooy dossier bi dañ koo war a def ñu wane ku ne nekk ci dëgg ñu xam ko ku nekkul ci dëgg ñu xam parce que sénégalais yi dañu sonn c'est trop lii dafa ëpp. su dossier bi amee kenn du liggéey kenn du tal nelaw kenn du tal dara. ah aji nekk star Ousmane Sonko mu ngi côté fële. moom eh, nekk star mu ngi ah. jigéen soor. Mm-hmm. ah xale yi ñu ngi sànni xeer côté bële aji ñi naan ko yow la ñu faral loolu oh, dañu sonn ci loolu. léegi ah. am raison Anta Seydou raison pour la laquelle. Mm-hmm. je pense que boo waxee waxu preuve. Mm-hmm. te loolu moo tax ñu programmer procès bi. pour que Adji Sarr ñëw Ousmane Sonko ñëw ñu xam fan la dëgg bi féete. donte sax bu fekkee ni mbir mi complot la loi nee na. il faut ñu mener enquête préliminaire yóbbu affaire bi tribunal ñu tirer affaire bi au clair bu fekkee ni sax am nañ ay soupçon que ni complot la alors ci complot boobu laay ñëw Seydou li ma lay laaj wax nga ba wax waxu politique waxu complot léegi à à à ton entendement fan nga xalaat que ni fa lañ comploté Ousmane Sonko ak fan la complot bi jógee. complot bi comme ni mu ko Ousmane Sonko ni mu ko waxee rek mooy diggante xam nga rek depuis début bi euh, dossier bi ba mu commencé dégg na ci ay homme politique ñi nga xamante ne cité nañ leen ci li nga xamante ne moo di dossier bi te homme politique yooyu aussi ci parti au pouvoir la ñu nekk alors loolu mënoo si génne que ni lii complot mën na ci dugg léegi complot bi tamit li koy waral daal c'est-à-dire avant dossier bi xam nga boo xoolee dossier Adji Sarr bi moo njëkk dossier bi nga xamante ne moom ak Mame Mbaye Niang bi léegi nag loolu yëpp c'était prévenu que ñu éliminer ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko bañ mu doon candidat looloo tax dossier bi boo xoolee parce que poids bi nga xamante ne Ousmane Sonko amoon na ko ak résultat yu nga xamante ne defoon na ko ci élection présidentielle deux mille dix-neuf gisoon que ni moo jël troisième Idrissa Seck moo jël deuxième à la fin Idriss Seck ki nga xamante ni moo di parti au pouvoir léegi Ousmane Sonko nekk foofu nekk leader de l' opposition xam nañ que ni carrément en 2024 bu fekkee ni fexe la ñu Ousmane Sonko ñu bàyyi ko mu dem balaa midi comme li ngay wax wóyeegam yooyu nga dégg wóyeegam yooyu <laughs> dégg wóyeegam yooyu boobu noonu nag moom la ñu bàyyi moo tax tey ñuy tax ay pexe pour jéem a éliminer ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko léegi nag moo tax ñu mooy léegi nag dañoo dem ba ci kanam na dossier bi dafa ëpp doole parce que xëy na dafa dem ba un moment donné nag dossier bi nekkatul dossier diggante Ousmane Sonko kese dem ba beneen mbir laxasu moo tax te forcément fu mu toll nii il va falloir parce que yóbbu ne defuñu ko non-lieu dañ ko yóbbu jugement il va falloir coûte que coûte ñu àtte bi parce que nekkatul chambre criminelle il va falloir coûte que coûte ñu àtte dossier mënatuñu dellu ginnaaw moo tax dossier bi mu egg fii mais bu ñu xamoon au début dossier bi fii lay mujj du ñu jéem comploter ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko leur stratégie c'était éliminer Ousmane Sonko léegi ginnaaw fee nañ foofu li nga xamante ne mooy dossier moom ak Mame Mbaye Niang foofu nañ fa Ousmane Sonko tuuti parce que xam nga ni carrément foofu moom am na fi nga xam mën nañ fa mooy ñu ne Ousmane Sonko moom moo tooñ xam nga te euh, le juge aussi condamné Ousmane Sonko Sonko du mën a doon candidat. Mhm. parce que d' après bon bu defee ne interjeté na appel yóbbu ko cour suprême mu nekk li nga moo di cassation léegi bu fekkee ne ñoom àtte nañ Ousmane Sonko mën na doon mënul doon candidat léegi xam nañ ni carrément que dossier bii nii buñ ko toppee moom dossier dossier dossier moom am mbay ñaa bi mën nañ am gain de cause mais fii nii comme te dem na bu fi il va falloir ñu dem vidé ko moo war dossier bi dem egg fii nii bu desoon que ni teel a début tey du bi fi nga xamante ni moo di procès ba di ko yóbbu ko war a c'était leur stratégie mooy liquider Ousmane Sonko dem nañu à un moment donné nag dossier bi ëpp ay bakkan di si tuuru mais il va falloir forcément ñu ñu tirer dossier léegi Ousmane Sonko moom tamit bu fekkee que ni man ci li ma jàpp. Ousmane Sonko lu tax moom à Ziguinchor il faut que mu dem waaw c'est-à-dire moom xam nga ni carrément le euh, comment dirais-je encore mardi ah mardi moo nekkoon procès bi. mardi boobu bu fekkoon mu ngi cité kër góor gi gars dañ koy yóbbu. Hmm. mais bu xam na xam nga Ziguinchor foofu la mbokkam yi la gën a bëri te foofu kan gars yi la ñu gën a di ko en boucle la ñu constitué en boucle ngir jàppale ko waaw loolu laa wax ma ne nag loolu laa wax ma ne nag Ousmane Sonko man ci ci bu fekkoon man maa koy conseillé dama koy conseillé à ce que moom mu dem répondre quoi hmm. parce que bu fekkee ni que ni dossier dem na ba yegsi fii ni moom il va falloir mu prouver thèse bi nga xamante ni moo di thèse complot bi parce que indi woon nañ ay preuve preuve a teg ci kaw bi ñu wane que ni bu fekkee ni jugement am na par contumace même bu fekkee ni moom am na ay preuve juge bi à quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent mun na inculper ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko te du xoolati li nga xamante ni moo di preuve Ousmane Sonko mais day fiyew ci euh, ak li nga xamante moo di Adji Sarr lu mu teg kon Ousmane Sonko moom waxul que ni du dema ah, parce dafa ne bu fekkee ni def nañ ko maanaam les moyens ñu sécuriser ko moom dina dem répondre ji parce que dé barke dem sax dégg naa benn ci avocat yi mais si anonymat ko def quoi waxul carrément ban avocat la ñu ne Ousmane def fekkee ni tegal nañ ko condition yu leer mettre que en en sécurité dina dem répondre li nga xamante ni moo di procès bi. Euh, Seydou Kane euh, dooguma la. Hmm. mais tey euh, usman Sonko toj nañu verre oto. bi mu daree waree wuy ji Ousmane Sonko dóor nañ ko d'après li mu wax ne loolu. poison la woon ah mu dem na ci clinique bi. ko pompe bi Ousmane Sonko il est asthmatique tey asmaam yëngatu na ci Ousmane Sonko. yàlla dogal na que buy génn ñëpp koy topp yàlla dogal xam nga yàlla mooy def. lu ko neex yàlla may na ko popularité. Mm. mbooloo euh, yàlla mooy mooy def nit ci benn affaire moo koy may benn affaire mm. te dafa may Ousmane Sonko ne jamono ji moom mooy contrôler politique bi parce que il est aimé par la jeunesse sénégalaise tey bu génnee ñëpp génn te bu génnee ñëpp génn te sécurité am tamit dafa dafa dafa des parce que quoi qu'on puisse dire keroog ba ñuy toj mais ba ñuy toj ba ñuy toj veeru otoom boobu. métti woon na bañ koy dóor pompe bi ba muy dem clinique bi maintenant donc il a ses droits mu bañ a dem su fekkee ni. ah yow nga jàpp que ni il a ci li mu bañ a dem non parce que li tax ah, ah, bu tekkee conditions yi mu teg nangul nañ ko ko. quelles sont les conditions mooy conditions yi nga xamante ni tey dinañ ko aar mu dem parce que l' état il est fort Macky Sall tey bu waree le président de la république bu waree génn dañ koy xajal yoon bi président la bokkul de mais attends rek c'est un chef d' état oui c' est un chef d' état mais kii tey jugam na lor nit ñi nit ñi euh, Moustapha laisse-moi terminer mun na tax nit ñi ñu ñàkk seen bàkkan et te Sénégal moo la tax a jóg tey da ngay ne viser euh, pour tout euh, pour tout li nga xamante ni moom mooy toutes les personnes sénégalaises yu nekk fi yi man foog naa ne war ngeen ko mën a sécuriser ba mu dem ci jàmm ñibbi ci si jàmm te kenn du ci mën dara procès bi ñu jaarale ko ci jàmm parce que procès boo xamante ne nekkatul dimension nationale mais internationale ñëpp koy waxtaanee et l'État il a les donc na wane ne il est fort ko ñu dem juge bi àtte ku mën sa ku ku kuñu kuñ ne moom moo nekk ci dëgg ñu xam ko kuñ ne nekkul ci dëgg après on avance parce que dañ ci sonn depuis mille vingt et un Seydou <laughs> ma rebondir ci li mu wax rek dama ne mhm. Ousmane Sonko moom c'est-à-dire posture bi mu yor nii c'est logique mhm. en plus dafa woon dafa def li nga xam moo di désobéissance civile loolu la woon. Mm. mais désobéissance civile dafa teg ay conditions. Mm. bu fekkee ni conditions yi remplir nañ ko moom dina dem répondre juge. Mm. mais dama ne man bu fekkoon ne man. dama war na teg ay conditions. ay conditions effectivement. Ah, justice ma yaakaar ni justice ma yaakaar ah, a mais da fàtte lim fi mais waroo teg benn condition lim fi dund yëpp da nga fàtte. non pour man. Eh. warul eh. mais tu as du fekk yow nee danga jàpp que ni affaire bi complot la. Anta aussi jàpp que ni complot la ba pare. non man waxuma ni complot la waaw jàpp que ni. Uh-huh. sécurité man dama doyul. Uh-huh. Euh, boo xoolee ni procès bi di demee. Uh-huh. nga gis ni première première faille mooy certificat médical bi Alfousseynou Badji. si mooy gynécologue bi waaw xam nga déjà boobu. nee nañ euh, certificat médical bi dara nekku ci. Euh, mu am ñoo xam ni. Euh, génn nañ. le rapport interne de la gendarmerie dem ba ci juge bi euh, ku mel ni ay MC. capitaine Touré tamit nekk na si. Euh, wax que ni. Mhm. aji waxloo aji saar ba aji saar ne li ma doon wax yëpp dara amu ci dama doon kaf mais le capitaine Touré nga xam ne. fa la mhm. dossier bi commencé ci moom. Mhm. ak enquête bi mu def enquête préliminaire bi ñu xool que ci biir enquête bi que yaa a beaucoup de zone d'ombre dans cette affaire maanaam boo xoolee enquête bi. Euh, li ñuy tuumaal Ousmane Sonko pour man dara amu ci. waaw bu bu bu ñu dajalee éléments yi yëpp est-ce que loolu woon tax que ni suñu programmé procès bi est-ce que Ousmane Sonko warul woon dem taxaw wóolu boppam xam ni ak fu muy mujj. dañ koy seetal ci mbir mi est ce que xam nga loolu nga posé man damay laajte est ce que élément yooyu noonu bu ñu ko rassemblé yëpp est ce le juge Maham Diallo bi nga xam yoroon dossier bi est waroon classé dossier boobu non suite def ko non lieu pourquoi mu renvoyer le dossier en procès d' abord mhm. déjà moom Maham Diallo il a des antécédents non dossier bi non non bi dafa war a dossier bi dafa dem procès mais waaw c'est parce que xam nga xam ah? bi mhm. procureur dafa am ñetti élément defee enquête préliminaire bi mhm. de la police wala de la gendarmerie dañ koy transmettre le procureur le procureur dafa am trois éléments yoo xam ni moom la la ko loi jagleel benn bi mooy su ko neexee mu def dossier bi classé ko sans suite deuxièmement bu ko neexee mu placer le sous mandat de dépôt compte tenu des éléments qu'il a troisièmement bu ko neexee mu bàyyi la nga dem ba pare mu mu ubbi procès non mu ubbi mu ubbi mu ubbiwaat beneen enquête mhm. pour ñu gën a approfondir gën a xóotal dossier bi pour am d'autres éléments. mais loolu loolu yëpp li nga wax nii. waaw loolu yëpp xam nga si fan la yem. ci le juge d'instruction gis nga le juge d'instruction. moo yor élément yooyu yëpp bu fekkee ne. waaw ah, xam nga bi moom. waaw léegi juge bi moom bu bu bu ko procureur transmettre. ah léegi le dernier mot lui revient moo c'est-à-dire euh, euh, procureur mooy envoyé éléments yi euh, dossier bi juge bi pour ñu programme procès léegi maintenant. bu fekkee ni les juges sont indépendants mais Ousmane Sonko pour man war na dem wuyu ji. Ah, loolu la expliqué nag euh, ma bàyyi ma ñëw loolu laa expliqué dama ne. Hmm. gis nga contretenir yi li nga xamante ne wax nañ ko yëpp xam nga dafa am le juge d'instruction. ak ki nga xamante ne moo di le juge de la chambre criminelle. waaw ah. léegi nag fu mu nekk nii euh, juge d'instruction moom pare na ci dossier bi. Ah. léegi nag instruction bu amee ba pare. nga rassembler tous les éléments ba pare. Hmm. léegi nag contretenu des éléments. yi nga xamante ne yor nga ko. Hmm. mën nga ne lii. dara amu ci nga renvoyé dossier bi non lieu. non non non déglu ma wax la. non non il faut ñu juger non il faut ñu juger. non non non mus nga am. non avocat yi sax loolu la ñu wax ne nañu ko yóbbu non lieu Seydou Seydou ah. mm-hmm. ñaar moo am. Ah. waaw d'accord ñaar moo am. on continue. dafa am lu ñu wax acquittement am ñuy wax ni il a été relaxé ou bien il a été acquitté xam nga kañ la ñuy wax ni il a été relaxé su fekkee flagrant flagrant délit la mais gis nga bi ñu jëm ni chambre euh, criminelle lañ jëm. xam nga avant cour d'assises la woon bu ñu demee il peut être du wax sax il a été relaxé mais dañu wax ni il a été acquitté c'est-à-dire le juge li mu def mooy su xoolee que ne li ñuy tuumaal Ousmane Sonko amul daf koy acquitté maanaam da koy bàyyi mais juge bi ah. tollootuñ fi nga xam ni dañu classé le dossier sans suite parce que classement dossier sans suite mooy maanaam dossier bi warul dem jugement loolu laa wax que mais dossier bi dañ ko programmé dafa. non non dossier bi léegi. Ah. dañ ko xas ba programmé pour juger ko. léegi la magistrat kii kii kii mooy ki nga xam ni. moo dirigé chambre criminelle. moom par A ou B dafa war a juger. waaw loolu laa wax que yow partir déggu ma dama ne. dossier bi yegg si na ba procès maanaam dañu ko war a juger maanaam le juge dafa renvoyé dossier bi en procès. c' est à dire léegi kay amatul dellu ginnaaw dañu ko war a juger. mais dama ne nag au début mënoon na ko def non lieu. mu bañ a def mooy moment bi nga xam avocat yi doon nañ ko demandé. Euh, euh, avant muy expliqué d'accord on s'est compris maintenant léegi nag loolu la léegi nag da ne acquittement ak relax bu fekkee ni crime da nga ne il a été bu fekkee ne nag wàllu euh, mu nga xamante ne flagrant ay délit il a été relaxé il a été relaxé terme yooyu kay je comprends bien léegi nag Ousmane Sonko mhm. bu fekkee ni moom dama ne condition yooyu noonu yëpp teguñu ko aar gi moom bu ko neexee. mais est-ce que a le droit moom citoyen la. bu ko neexee aussi. bu fekkee ni moom lu mu gis dañu salfaañe li nga xam moo di ses droits ak ak élèves maanaam joxuñu ko moom il a le droit de résister mu ne non du ma dem parce que. li ma sama droit joxuñu ko point boobu lañ ci ñëwaat léegi Anta compte lu ñu jot a gis yëpp par exemple bus yu ñu jot a taal ah, ci jot a faatu est-ce que jàppoon la le 23 bi ñu jëm est-ce que du gën a metti fi ñu jógee. bi. Mm-hmm. Euh, ci kañ lay gën a metti bu fekkee ni Euh, gën nañu parce que euh, mu ñëpp euh, instant bi Ousmane Sonko la ñu jox nopp la ñu jox bopp tey bu juge bi bu ñu ko jugee mu nekk en faveur de Adji Sarr dëkk bi lu ne mën na ci xew lu ne mën na xew mais nag buñ ko jugee yaa ngi dégg ñu daal di koy def ni mu waree ñu xam en faveur de Ousmane Sonko la jàmm mun na am mais su loolu ah, amul. loolu da nga bëgg pour jàmm mën a am ñu def ko en faveur de Ousmane. ah déet <laughs> laaj non jox ne su fekkee ni jugé nañ ko. Ah. man li ma gëm mooy li ma gis. xam nga juge yi ñoom dañoo waat. waaw et puis nga bu fekkee ne waat nga nga wax loo xamante nii loolu moo am. yaa ngi may dégg léegi li am mun na arranger Ousmane Sonko mun na bañ a arranger Adji ah. mais bu fekkee li nga xamante ni moom la juge bi gis parce que gëm nañu loi bi. tey bu fekkee li juge le juge bi gis mooy que ni viole amul su boobaa dégg dara mais bu dara bu ñu waxee ne. léegi bu ñu waxee ni viol am na kon yow jàpp nga ni. réew mi lu ne mën na ci am ah. ah. lu nekk mën na ci am. te loolu aussi ci procès bi aussi loolu mën nañ ko ci wax. mën na waaw mën na si am. Ah. kon nag man je vois que li ci kanam ah war mun na gën a métti buñ ko calmé wul parce que les jeunes dañu motiver. xam nga seen force non xam nga boo nekk calmé wu. dañu jëm ci procès. Mhm. soit Ousmane Sonko dañuy wax ni deful dara. loolu laa lay wax ko soit moo def lool condamné loolu laa la wax ma ne la su fekkee ne nag dafa nekk en xam nga bu ñu nee Ousmane Sonko deful dara kon affaire bi c'est en faveur de Ousmane Sonko. su fekkee ne dañ ne dafa def c'est en faveur de Adji Sarr. mais dama gis ne bu fekkee ne dañ ne Ousmane Sonko deful yaa ngi dégg bu deful su boobaa dëkk bi mun na gën a calme que buñ nee moo ko def. bu boobaa mm-hmm. dëkk euh, parce que patriotes yi comme niñ ko ni ko ni ko nit ñi di tooñee ce sont pas des militants mais des fans. yaa ngi dégg mais est-ce que mais est-ce que na ñu bàyyi ñu taal dëkk bi est-ce que tu tu trouves ça normal parce que nous sommes dans un état de droit parce que euh, euh, ñëpp ñoo yem ci loi bi euh. Ousmane Sonko bu fekkee moom moo def bu ñu ko jugé condamné ko je pense que dara warul mën a xew xam nga histoire bi mooy affaire bi ba mu duggee ci politique la la la la la ñëpp ne complot la tey bu ñu ko firndee ne parce que ñoom ñi nga xamante ni tey ce sont des militants d'Ousmane Sonko lim ñu gëm mooy politique eh, complot la. comme ni ko Seydou waxee comme ni ko Seydou waxee tey bu ñu ko dëggalee dañ naan waa koy complot bi am na donc lenn rek moo fi des mooy rapport de force. te ñoom pare nañ pour def lépp man loolu laa gis dama ne buñ ko jugé parce que juge bi moom dafay tëddee njaaxaanaay parce que dafa waat dafa jël serment que ni def lépp lu muy àtte dëgg lay doon. bu nekkee nag euh, ça dépend nag ci kan lay arrangé a kum dul bañ a arrangé mais li ma gis mooy que ni jeunes yi dañu am benn force boo xamante ni c'est inouï et ils sont prêts à tout faire pour sauver le président Ousmane Sonko. alors Seydou. Hmm? indépendance su mm-hmm. est-ce que yow gëm nga ko. waaw gëm naa ko parce que aussi quoi qu'on puisse dire am na ay juges yu nga xamante ni ce des juges indépendants. da nga ne am na ay juges. waaw loolu laa wax. ma aussi du maanaam. du lépp du lépp ñuul ci soomi aussi quoi mm. même bien vrai que am na ay yoo xamante ni da xaar ni xam ni carrément que ñii ce sont des magistrats du pouvoir loolu da nga koy xam carrément depuis mm. seen jugement mm. da nga xam ni carrément ñu ñuy attee xoo bët xooluñu li nga xam te mooy parce que man xam nga lu na ñoo xam ne aussi ils sont du camp de l'oppo de li ñu wax comme li ñu wax ci procès Mame Mbaye Niang kon da ngeen bëgg a wax ne kon juge bi tëddeewul njaxaanaay parce que le juge dañ ko tuumal que ni pro moom day commenter affaire u Pastef tout le temps li muy commenté say en faveur de Ousmane Sonko ba looloo tax sax peine bi mu waroon doon Ousmane Sonko sursis pour Ousmane Sonko dootul nekk euh, candidat mu doon ko peine deux mois. voilà yu bëri nañ ko reproché. donc loolu léegi léegi moom patriote la. léegi loolu nag. le juge moo tax mu doo Ousmane Sonko deux mois de sursis. mais man yéen kon da ngeen ne justice bi tëddee na njaaxaanaay wala tëddee. waaw loolu la wax nag xam nga yow indi nga fi ñaari cas. ñoo xamante ni pouvoir ñi opposition. kon ba tey da xam ni carrément am na ay magistrats yoo xamante ne mm. tëddeewuñu njaaxaanaay am na ñoo xamante tamit ñu ngi def li nga xamante ni moo di seen liggéey comme ni ko waree. c'est-à-dire di def leen liggéey kenn xamu leen kenn yëgu leen dara te ñu ngi trancher les choses mais gis nañ que ni daal juge bu fekkee ni tamit dégg nañ que ni à cent à juge am na juge yu pare opposition li nga xamante ni dégg nañ ko ñu parti pouvoir moo ëpp li ngay dégg que far nañ ci opposition. te mm. benn cas la ñu mos a dégg mooy le cas de. Euh, Sonko bi nga xam moo yoroon dossier Ousmane Sonko bi. ba mu condamné ko avec sursis quoi. deux mois deux mois sursis kooku mais fële de temps en temps da ngay ay ñeneen procureur yu nga xamante ne dañuy xaw a jege li nga xamante ni moo di parti au pouvoir mm. te gis nga que ni euh, dossier bi nga xamante ne le dossier de Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang le juge euh, Ibrahima Bakhoum dafa réclamé woon à ce que mandat d'arrêt waaye tamit ñu condamné ko à deux ans un an ferme ci benn parce que le procureur il représente le ministère public c'est ça c'est-à-dire ah. léegi nag ci benn dossier bi nga xamante ne ce n'est qu'un dossier diffamation li si jar ay mandat d'arrêt ay ñun nañ ko tëj. mais c'est le mais de de l'État le procureur. représentant de l'État. du ministère nag dafa ça n'a rien à voir de. Hmm? mais moom la sàkku. même le procureur aussi ci magistrat yi nga koy boole. waaw waaw léegi nag bu fekkee ni benn dossier diffamation nga bëgg si tëj nit ñaari at. Hmm. lool lan la lan nga koy gisee mais si ko. waaw suivre ko waaw c'est ça c'est-à-dire euh, comprendre li ma wax de dama bëgg wax ni hmm. am na ñoo xamante ne tëddeewuñu maanaam dañoo bëgg kut ko dañoo bëgg kut ko kut ko kut condamné Sonko hmm. mais am na ñoo xamante ni tamit ñoom ñoo ngi def seen liggéey comme ni nga sa chaque jour di nga gis ay dossier day ñëw tribunal ñu vidé ko du am benn coow donc loolu aussi day am mais dafa am daal nii ak laa ok waaw hmm. alors ñu ngi signalé que ni temps bi li ci des euh, presque bëriwul deux à trois minutes Anta alors lan ngay conseillé Sonko matt parce que nee nañ dafa demoon laqatu ji ci bois sacré yi di wutlu ay ñaan nañu ba moo tax nag bi mbir mi pare mu dooroon ak génn démb lan ngay conseillé Ousmane Sonko li ma koy conseillé mooy na ñëw <coughs> parce que moom avant naam doon na wax ne ay doon na wax ne bëgg nañu def procès yaa ngi dégg na ñëw parce que 2021 ba tey ñu dañu sonn ci problème bu Adji Sarr Sonko. Hmm. man li ma bëgg mooy. te bu ay conséquences. waaw mais ah lu ñëwul aussi na ñëw lu ma bëgg mooy affaire bi jeex une bone fois pour toutes. dootuñu ci waxati ñu àtte affaire bi jeex. est-ce lu mu ragal moo tax ñu. ah je sais pas loolu moom xamuma mais daal hmm. li ma xam mooy war na ñëw ñu àtte ko jeunes yi aussi mu ñu leen di wax que ni Sénégal ñun ñoo ko moom. suñ ko yàqee aussi suñ ñun lay metti donc ñoom war nañu bàyyi di saccager ay affaire bu ñu waxee nii bu Sonko suñu ku wax Sonko xam nga di dem ba da ngay gis ne daal euh, Sénégal. même journaliste yi sax ci terrain bi ñu ngi leen di menacé yow. Ah, man ah. xam naa si dara. Ah, bi nga euh, demee Ngor tout récemment population bi xaw nañ dal sa kaw. waaw loolu dëgg la <laughs> loolu yëpp nañ jeunes yi tamit war nañu ñu conscientiser leen ñu bàyyi yooyu Ousmane Sonko. Aji Sarr nañ ko jeexal le 23 dañ ci sonn ku ko wax ak ku ko waxul ñëpp a ci sonn ah bu Sonko waree génn dëkk bi kenn du kenn du euh, jaay boutique yi duñ jaay mm. ah restaurant yi ku nekk économie bi day ah, daanu économie di daanu ku mm. nekk yaa ngi rawale sa njaboot mm. donc nañ ko jeexal nañ ñu yërëm dëgg la ah. alors daan ci gën a ñëw nu mu nu mu gën a yaatoo ci biir semaine bi alors Seydou mm-hmm. euh, temps bi jeex na. Mm-hmm. Euh, lan ngay tàggu. waaw bon di ne rek gis nga dossier bii nii. lan ngay conseillé Ousmane ak lan ngay tàggu. dossier bii nii. Mm. dossier tappale kese la. bëggoon liquider Ousmane Sonko rek moo waral ñu. mu activé li nga xamante ni moom Seydou Ba duñ la convoqué yow comme ñu convoqué suñu confrère kese dañoo ah, bëggoon liggéey <laughs> de xam naa ni dossier bi si la laaj la yow fan nga teg ni dossier tapale <laughs> xoolee procédure bi nu demee yëpp bëggoon rek Ousmane Sonko a doon candidat kese hmm. moo waroon ñu activé lii ne léegi nag Ousmane Sonko moom tamit sakku woon na li nga xamante ni moo di procès léegi procès bi comme tu le 23 la man la ma koy conseillé mooy na ñëw bu ñëwee indi preuve yi nga xamante ni indi woon na ko mu teg ko sur la table du juge léegi nag juge bi à partir de cela mën na àtte mais comme na ñëw bu ñëwee te man gëm naa ne xëy na mardi aussi dina ñëw parce que gis nañ que ni démb ay kër kii nii euh, yoo xamante ne Euh, avocat yi wax nañ ko xëy na bëgguñu feeñ ñi rek mais ci li d'après li ñu wax da nga xam ne carrément que ni Ousmane Sonko mën naa amul ñëw ci kii parce que ñoom hmm. a metti hmm. ci jugement bi parce que juge ci li nga hmm. war daal mooy nañ ko sécuriser aussi comme ni mu ko waree ñu jox ko li nga modifié droit mu ñëw répondre juge bi ñu jugé tamit ñu xool dossier bi fu muy mujjee mais li ma koy conseil daal mooy ne ñëw fekkee li nga xam moo di jugement bi le 23 incha allah. loolu ngay tàggu. di gërëm suñu mbokk téléspectateurs yi rek ak internautes yu TMS TV donc di la gërëm bu baax di gërëm Anta donc di leen joxaat dig rek beneen émission petit matin yaa ngeen jëf. Anta ñu bàyyi la nga tàggu. waaw di gërëm ñëpp ah di gërëm inter ami internaute ak téléspectateurs yi nga xamante à chaque fois euh, ñu ngi ñuy suivre à travers la TMS TV ci seen émission bi xam yéen a ko préféré muy petit matin. jërë ngeen jëf amoon naa mbégte ànd ak yéen ci émission bi euh, xanaa di ziarat di ko jox wàccuwaayam ci di le xalif général le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king di Alaaji Thierno Moule Sow di ziar madame Sow la reine di ziar Rahman ak Rahim di prince Moule 1 ak 2 di nuyu association Daarulaay famille bu Sénégal ak bu international amoon nañu mbégte vraiment ànd ak yéen te nag ñu àndoon ak Alseyni Diouf le grand caméraman di di borom leen jox dig daje ci yeneen ay émission wasalaam